وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وجه نبي المنتقى المنير ينير قلب كل مستنير أحمدنا المختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باها نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام ربيا كتاب أحمد سوى نسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى للمنتقى للمنتقى أنا يبدو سيدنا محمد للمنتقى الذي تقدم شبق ذكر الحكيم من إبليس لبق عليه صلى بسلام صرمدا في الآل والأصحاب وكل حمدا للمستوى للمصطفى للمصطفى لدى الإله الواحد نور ينير قلب غير جاحد أنا keroog bi ñu ko leeralee président Cheikh Alassane wax na dem na ci sa barabu turandoo juróom-ñaari yoon ziyaar ko eh, ah waaw ca Tanta nga xam ni keroog sax tudd nañu baabul miftaaxul waaw miftaaxu baabul rasul ba ba ñu indi sax eh, miftaaxu baabu pale waaw ah, ci ci ci Serigne fallu nag digganteem ak Senghor waaye digganteem ak eh, ñi fi nekkoon ci fa mu jaaroon ñoom. ndax bi Senghor ñëwee bëgg Sëñ Fallu la mu ko wax rek leer na dana ko jumaa ji de bu sottee li nga bëgg di ko am ndax ñun amuñu kudul borom barak bi Senghor ni kon ñun de bi ñu bu amee lu ñu bëgg de li nga bëgg dana am ñun nag dañoo amul jëmm ji dañoo amul lu dul jëmm ji sëñ Mamoor wax na ko wax na ko ci taxawaay wax na ko ci mbaax waaye wax na ko ci social nguur nag yàlla moo koy joxe kenn du ko joxe kudul yàlla moom da koy faral di wax ci ay kàddoom waaye xam nañ ni barab bi barabu ñaanukaay la ndax Sëriñ Fallu moo toll noonu ci boroomam moo am ci boroomam loo xam ni kun gi jege woon na ko lool ba lu musaana ñaan sunu borom fekk si ko ci lool tey bi ñi ñëwee itam fekk fi sëtub sëñ Mame Mor jaara borom sàmm bi toog nga xam ne sëñ Baara keroog sëñ Cheikhouna mu sëñ Cheikh Penda moom Mame Mor Diarra borom sàmm bi ñu koy ñaanal keroog ay kaddoom maa ko yëkkati ca kër sëñ Cheikhouna taawam ba sëriñ Xaadim sëñ Moussa mbaki mi nga xam ni wóllare euh, président Cheikh Khady Sall bu Taïba bu Taïba Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen mu am waay boo xam ni bu ñu ko fi fekkee muy sëtub Maam Mor Jaara moom soxna Jaara sunu xel dafay dal ndax xamoon na ni Serigne Fallou ni mu meloon ci maamam daan fi jugi daan dem di ko ziyaare ji ñu fayee ko nag rasulillahi sallallahu alayhi kii nag sopp ko lool njabootam gi mu am yëpp mu tuddee yonent bi Serigne Fallou itam ñu tuddee ko rasulillahi kon buñ ko fi fekkee fekk la fi mbakki li ñu bëgg mooy sa jur wayjuru baax yi nga xam ni ku ne am na sëriñ waaye ku jàkk Serigne Fallou waa mu ñëwee ci Serigne Fallou ba lu ma ci góobee gar ko sëñ Fallu daf ni ko doog góob doo gar ku laax da laax ndax Fallu awu bu sooy si sëriñ kon nag Mbakke kii rek la ñu am kii rek la ñu bëgg ñaanalal nu ko lii nu jëm te di ko wut yàlla may ko ci ndam ci barkib fal Fallu waaye barkib Cheikh Ahmadou Bamba boo ko ñaanee nag mu am na xam na ni sa digg ak sëñ Tuubaa kenn rek ci dox muy sëñ Fallu te bis bii nag bis bu mag la ndax sëñ Fall daf ni daf ni daf ni daf ni eh, julli daf ni daf ni lay mani mani cëpp ci ñaar fukki fan yeeg juróom-ñaar ci bi yonent bi demee ca rañaan ga muy gudd goo xam ni gudd gu tedd la mu ànd ak forte délégation bi mu àndal nga xam ni fu mu baaxoo dem moom lay àndal ñoom itam ñuy nit ñoo xam ni nit ñu am engagement nit ñoo xam ni déterminé nit ñoo xam ni am taxawaay ba kenn ku ci nekk ci mbooloo mi mbooloo nag moo topp ci fa nga nekk nag nga taxaw fa taxawaay boo xam ni ngir président Cheikh Alassane nag am ndam ci réew mi war naa mën a ànd ak yow ndax sëñ maa yi sëñ maa yi Ñas mi xalifa see Cheikh al Islam daf ni ko yàlla dénk na la xam boo xam ni say kaddu de bu buy jóg àdduna dañ laa war a diglu kon moom nit la koo xam ni nit ko am taxawaay la ci réew di boroom xam-xam di boroom cër waaye am taxawaay boo xam ne taxawaay bu am solo la lii rek la ñu woon sëriñ bi ñu yëkkati ko ci ay kaddu seedeel la ko xam ni daal ñu ngi jëm ci loo xam ni daal ah, miftaaxul babul pale boobu daal bëgg nañu nga ubbil nu ko waaw comme que sëñ Bara Réna moom yaakaar naa ni mbir yëpp amaana ni ah, incha allahu rabbi ni ko bëgg dana ko am waaw ah waa caabi ji nag ñu jot ci tey incha allah <laughs> bu soobee yàlla yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di la nuyu sëriñ bi di la dellu di ndokkeel ci weer wu tedd wi di ñaan sa waajur wu tedd wa sëriñ Fàllu Mbàkke yàlla yokk leer ci moom ci barke turandoom sallallahu alayhi wa ci barke waajuram wu tedd Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul maa waxoon ci ubbite université bi maam mool mi ngi fàttali léegi ak Moustapha ne dinaa ñëw ndokkeel la ci li bis bi may sant yàlla nag bi ma mayee ba sama yéene boobu ñu mën ko àggale ndax lu sotti rek mooma moom suñ borom ma la ciy sant surat rahman fa bi ay alaa'i rabbikuma tukadibaan su ma juumulee fanweeri yoon ak benn la ko yàlla baamtu ci sura bi loolu jàngale la bu suñ boroom di ñu wax ne tamit ñun tamit ñuy insister ci sunu ay bëgg-bëgg yéene bi sengoor amoon fii ci Touba la mu ci war a def mu def ko dem yéene boobu Abdou juuf amoon ko ci Touba ñëw def la mu ca war a def dem président Abdoulaye Wade ñëw am la mu ca amoon def ko dem euh, président Macky sàll def li mu war a def man yéene boobu mbaa bu ko raw laa am ci Touba ji te yéene bi ma ci am ku ne war naa mun a xam ne mën naa ne ndax yàggul dara suñu waxoon tali ilaa Touba am na ñoo xamante ne dañuy wax est-ce que mën naa ne man suma yéene nag mooy roppalaan di jóge réew yu bari ci àdduna di wàcc fii loolu yéene bu rëy laa ci am ci ci ci fii te den maa ngi ciy dox di ci wax te jógewuma ci loolu bi ma ko tàmbalee wax ak léegi moo tax di la ko baamtu saa su ne dafay am solo li ci ëpp solo nag ci baamtu bi mooy dama bëgg du gaaw nag mais bëgg naa daal nga dem ba ràññee ne li may wax ñor na ma waaye waaye du gaaw nag du damay ñëw benn yoon ak ñaari yoon rek ñu ne ñu ne jeex na kon déedéet kilifa gu mel ne yow su dee da am mbir mu itteel la da ngay baamtu di baamtuwaat ba mu xam ne li ngay yëngu ñor na la te ci tànk yooyu laa ne doog a tàmbali taxul na nga am foofu laa toll sëriñ bi di la di la santaat bu baax soo demee Turquie nga dem Istanbul ñu gën a respecté ca dëkk boobu mooy les recteur d'université parce que ku nekk recteuru université yow danga am responsabilité koomu réew ma te koomu réew mi pour mu jag il faut que xam-xam lal ko xam-xam boobu pour mu jagit il faut ña koy jël di ko sottil ay ndaw ñoom ñu ñu stable dafa am benn tubaab buy jàngale waaye këram dafa yëngu saa su ne moom itamit toogul benn place ba ñamu jàngal ñu seetlu ne am nañu xam-xam waaye seen xam-xam bi taxul ñu yëkkati dara ba loolu mën a fës ci bëtu nit ñi ba jëriñ leen ñu def l'enquête xool ndax ca ñoom la wala njax ca ka leen sol xam-xam ba la ba ñu defee l'enquête ba xool ne ki leen daan sol xam-xam bi li ci ëpp ci dundam dalul moo tax tànn gii sëriñ taxa tànn la lu lu am solo la ci rectorat université Cheikhul Khadim bi daanaka su fekkoon ne tailleur buy ñaw la dañuy wax ni sur mesure la doon ci yow ndax sa taxawaay sëriñ bi lii mooy dëgg te lii ma wax nii ay nit a ngi koy ngun nguni am na ñeneen ñu koy waxtaanee ci ay bayal waaye Touba foo fi jaar amul benn kàddu bu fi jëpp ne Cheikh Ahmad Badawi warul doon recteur ci université bi unanimité nga am ca loolu te lii mooy dëgg yàlla dëgg la bëgg aussi moo tax mu nekk fierté ci ñun ñëw di gën a ràññeelu suñu jëmm ci yow mu nekk fierté ci ñun ñëw di la gën a wax suñ yéene ci réew mi waaye suñu yéene aussi ci liggéeyal cheikhul cheikhul xaddim bëgg nañ ci tàbbi mm-hmm. te ku ne am na sañ-sañ boobu nag mm-hmm. waaw ma am ci sañ-sañ ginnaaw nag bi nga xamante ne may man tam bind naa ci moom juróomi taalif yu am solo yu ma la nar a jébbal fa muuj zedde nekk ak jasig bi nga xam ne dafa mën ndox mën suuf nekkoon foofu dangereux excité soo xoolee li fa Cheikh Ahmad Bamba nekk yépp dañoo ànd ak yar ñoom ñaar mu nekk kéemaanu yàlla waaye waaye ndokk nag sëriñ bi soo xoolee archive yi tubaab yi bàyyi dañuy yéemu ci taxawaayu Cheikh Ahmad Bamba ma wax nag ne ku mel noonu jóge ca tukki ba dellu si suñu réew mbooloo mu fi bàyyi woon yokk ba jaaxal tubaab bi di xaar alerte wax naa ko su Cheikh Ahmad Bamba ñëwoon ne tubaab bi lam ma def fële tubaab du fi fanaan te tubaab dootul daagu ci réew mi mu ñëw ne jéggal naa ñépp ñaanal leen waa ñun moo tax su ma déggee yenn saay nit ñi di wax sëñ Muntaxa war naa wax li xew ci réew mi ma ne kii héritage bi mu yor jàmm la mënu ko génn mhm. ndax loolu la ko Cheikh Ahmad Bamba bàyyeel mënul génn loolu Cheikh Ahmad Bamba soppeem ba gën gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam ba mu dellu see màkka ca kanamu noon yi da leen a jéggal loolu rek sëriñ bi la képp ku nekk ci réew mi war a doxe ndax Cheikhul Khadim fàggul nañu lépp ba noppi donc sëriñ bi maa ngi lay sant bu wér léegi rek ki fi toogoon dafa wax ne moom de sëriñ bi nee na kër diw ak kër diw ñoo dend ca aljana sama xel demaat ci la mu waxoon nazaani min al walal baaxil xaddiim allamahum bi annani l abdul xaddiim yàlla seppi ko ba bokkatul ak jaam yi dara loolu neex naa dégg ndax reine d'Angleterre ngi fii bokkul dara ak suñ borom te mi ngi anobliir ay nit ñu ñu feqatu dama gis cantona rek cantona bi ko reine d'Angleterre anobliré dafa yéegi ay mbaggam ma ne ay su jàngoon bayit ba hadin sarrafat xaaji ila fatixi rati wa inni la woo abdul wali jaada bil itxi ma ne ay su ko jàngoon ñu ñu goreel la nga wëlbatiku nekk jëwriñu gën gi mbindéef kooku kéemaan la maa ngi lay sant bu baax sëriñ bi di am mbégte nag di jàkkaarloo yow saa su ne di sant ci accueil bi ci élégance bi aussi bi may dugg Euh, nga jóg taxaw sama xel leen rek la jëm ma ne daal semaine bii il faut ma concentrer def benn benn poésie ci yow ci sa taxawaay waaw comme sa ma am occasion su ma ñëwaatee euh, jébbal la ko ndax ndax taxawaay bi personnalité bi humilité bi yal yàlla fay la ci barke gën gi mi dee sallallahu alayhi wa jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf sama xol sedd na wala ah, ah, ah. waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw jërëjëf Mbacke xol sedd na gi baax a baax a baax amiin amiin Mbacke amiin Mbacke bis bi ñaan dañ xas lañ bëgg lépp rek yàlla sama borom nangu amiin Mbacke def dañ jàppaat beneen waaw incha allah ci université incha allah taala bu yaatu wallaay wallaay dinañu def lool Mbacke Mbacke kat dañ doon siyaare su fekk ko fi waaw أحمدنا المختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باها نبينا الأحمد نور الرسل عليهم أزكى الصلاة المرسل نبينا الأحمد نور الأنبياء عليهم أزكى السلام ربيا كتاب أحمد سوى نسى وإنه بخير لن ينسى للمنتقى للمنتقى للمنتقى للمنتقى أمن يبقى سيدنا محمد للمنتقى الذي تقدم سبق ذكر الحكيم minu iblisu labat alayhi salla bi salaamin sarmada fi l aali wal asaabi wa kulli xamida lil mustafa lil mustafa lil mustafa ladal ilaahul waahidi nuurun yuniiru qalba xayra jaahidi mais fi mu nekk nga xam ne bala moo dem fenn day ñëw nga xool ko sa bët yërmande yi ñaanal ko nga xam ne ni sëñ Muntaxa doone wéy juróom noonu nga doone wéy juróom sëñ Tuubaa rek ko ñor Mbàkke ku baax a ngi Masaalikul Jinaan gële moo leen imaam xool bi tabaski lu mu ci man ma nga leen ci jàppale seen kent laay ñaanoo mu yokk wér li ko ñor nag. <laughs> waaw nee na ku baax la. mooy 2024 bii réew mi la bëgg te kër Sëñ Fall yi miiru yaakaar ju tos xamul kër Sëñ Fall si. amul léegi amiin amiin amiin sëñ Fallou Lo mii nag.